amasbillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi Touba ci kanam ci banxaasam bi tudd commission finance ak sous commission gestion des fonds ñoo ñëwoon tey ngir jottali leen li dugg ak li jot génn ci Touba ci kanam ci atum deux mille vingt muy bilan global ñu tàmbalee ko ci Touba ci atum deux mille vingt li fi dugg ci Touba ci kanam ci compte yi mi ngi toll ci six cent cinquante et un millions trois cent quatre vingt douze mille quatre vingt neuf francs six cent cinquante et un millions trois cent quatre vingt douze mille quatre vingt francs bu dee ca Dakar ci njiitul Baye Serigne Bousso ak sëñ El Hadji Ndaw Serigne Mor Sourang ak mbokk yi fa nekk yëpp quatre vingt quatorze huit cent quatre vingt sept mille cinq cent soixante quinze ca Kayar soxna Fat soxna Astuwaaj trois cent cinquante mille ca Sandaga ci Ndakaaru Serigne Afé Niang un million bu dee ci Orange Money mooy soixante dix huit cinq cent quarante quatre trente trois trente trois li ci dugg ci weeru ci atum deux mille vingt mi ngi toll ci sept millions deux cent quinze mille quatre cent cinquante bu dee ci Wave mooy yónneekaay boobu ci plateforme bi mooy bi nekk ci biir application bi li ci dugg ci atum deux mille vingt mi ngi toll ci dix neuf millions quatre cent cinquante huit

bu dee ci Arafat ci njiitul soxna tuuti ñang cinquante mille ci ay relaaw ca Fuuta Sëriñ Xaadim Sow quatre vingt mille ca Bakel ci Njaawara ci Bakel Sëriñ Seex Aan huit cent treize mille francs ca Bambey Sëriñ Abdou Fall neuf cent soixante mille ca Bokki Jaawe Sëriñ Taala Kan sept cent quatre-vingt-un mille bu dee ca Bopp Silla Sëriñ Seex Ahmadou Bamba Silla un million six cent douze mille ca Bustaan Jaw Soxna Naar Jaw cent quarante cinq mille ca Casamance ci Carrefour Diaroumbe ci njiitu Sëriñ Modou Makhtar Mbaye trois cent cinquante et mille ca Casamance ba tey Sëriñ Modou xari Guèye deux million six cent soixante dix mille neuf cent ca Dagana Sëriñ Baye Saliou Lay cinquante mille daayira Babul Ayadi nekk ca Agnam ca Fouta sept cent quatre vingt sept mille ca dakaar ba léegi Yoff Ndangaañ Serigne Lay Gote Diop cinquante mille Daaru Fall Soxna Xadi Fall cent cinquante mille francs bu dee ca Daaru Gay Soxna Fati Gay deux cent soixante-quatorze mille Daaru Minam Bambuk Serigne Ibrahima Congaan cent mille francs ca Daaru Musti Soxna Muslim Mbàkke six cent trois mille francs Daaru Salaam Bokki Barga Soxna Astu Gay cinquante mille Daaru Salaam Jogo Serigne Bassirou Cissé ak Soxna Guèye deux cent cinquante mille Darou Salaam Thioune ci njiitul Serigne Abdou Salaam Thioune un million trois cent cinq mille département Linguère ci njiitul Serigne Cheikh Diorel Mbacké un million trois cent mille francs Jam jàlle Serigne Kabou Kébé soixante mille ca Njàppandal Soxna Abi fay cent dix-sept mille francs ca Diawbe Serigne Bara Diop sept cent cinq mille ca njaareem ci njiitul soxna Daba Mbàkke ak soxna Ndey Njaay Baye Fall soxna Ndey Njaay Manel douze millions trois cent soixante neuf mille ca Jifeer sëriñ Ousmane Ndiaye un million cent cinquante mille cinq cent extourne bancaire mooy li nga xam ni banque yi da koy jël di ko delloosiwaat bu weer wi jeexee ci at mi banque atlantique delloosi na ci deux cent trois mille cinq cent quarante sept ca Fass Boy sëriñ Pape Fall cinq cent quinze mille ca Bokki Laaji ca Fuuta sëriñ Mouhamadou Fadel Dia un million quatre cent quatre vingt deux mille ca Orkadiéré ca Fuuta Serigne Massayer Guèye deux cent deux mille ca Amady Onaare wala bokk ca Onaare ca Fuuta Serigne Mbacke Lo trois cent mille ca Dundu ca Fuuta ba tey moom itam Serigne Ousmane Dia quatre vingt cinq mille ca Thiarène moom itam ca Fuuta la Serigne Mbacke Sène deux cent cinquante mille ca Gassane ci njiitul soxna Fatim Mbeng cent mille francs ca Joal Jiwaalo Serigne Basirou caw quatre million cinq cent seize mille ca Kaba Serigne Ma Serigne Babacar Mbaye ca Kaba quatre cent mille bu dee ca Kafountine Serigne jëmb Cissé ak Serigne seex Fall neuf cent vingt cinq mille bu dee ca Kanel Serigne Ngagne Ndongo vingt sept mille bu dee ca Kaolack Serigne Moustapha Touré vingt et un millions cent soixante dix huit mille deux cent mu dee ca Kébémer Serigne Gora Sill douze millions six cent soixante mille ca Kédougou Serigne Modou Lo quatre millions cent soixante quatorze mille huit cent Kër Massar ci njiitul soxna Ndey Jaxate cent quatre vingt trois mille ca Xombal soxna Xuma Touré un million deux cent quatre vingt treize mille ca Kolda Serigne Moussa Sène trois millions soixante neuf mille ca Colobane soxna Thiam quatre vingt seize mille Koudiane sëriñ Ibrahima Niang ca Kujaan cent douze mille sëriñ Youssou Touré bu dee ci Koungheul sëriñ Youssou Touré moo fa nekk Koungheul un million cent soixante mille kuréelu julli géej gi ci njiitul soxna Xuma Touré neuf cent cinquante mille ca Kousanaar soxna faatu Kane cinquante mille bu dee ci Louga ci njiitul sëriñ Moustapha Bassirou Mbuub vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent francs bu dee ca Madina Touré ci njiitul soxna Oumy Mbakkeem Serigne Fallilou un million cinq cent ca Matam Serigne Ndiaga Diouf quatre cent neuf mille cinquante francs ci Mbacke Bawol Adja Dior Gaye Serigne Mama ak soxna Ñaaw Mbacke huit millions cinq cent quarante mille ca Mbar soxna Ndaak Sey quatre cent six mille ca Mboro soxna Fatou Manel Fall cent quatre vingt cinq mille bu dee ca Mboro ba tey Serigne Jili Seck cinquante un mille ci Mbour Serigne Mor Sorang ak mbokki Mbour onze million cinq cent six mille trois cent ca Njum Gent Serigne cent mille francs ca Mesere Serigne Bakke Seck ak soxna cent vingt mille ca Modiri Serigne Bassirou cinq cent cinquante mille ca Musalla Serigne Ousmane Diop cent mille ca Njax soxna Say Seen cinquante mille ca Njawali sëriñ Modou Ly quarante huit mille bu dee ca Njum sëriñ Saliou Ndongo cent mille francs ca Njumaan soxna maam Bousso Ngom cent soixante dix sept mille Ndobe Gajaga sëriñ Ali Gajaga cent mille ca Ndobe Lay sëriñ Fallou Fall quatre vingt seize mille francs ca Ngaay jiite soxna soxna jiite. un million deux cent quarante cinq mille ca Ngore Serigne Mbacké Thiam cent deux mille moo dee ca Ngunjaan Serigne Modou Thiam six cent cinquante mille ca Goudiri Serigne Damba quatre million trois cent quarante huit mille trois cent ca Ngoy Serigne Assane Yadd six cent huit mille ca poste Kër Ayib ca frontière u Gambie Serigne Modou Niang cinquante mille bu dee ca Pout sëriñ Ababacar Ndiaye cent soixante six mille ca Ranérou sëriñ Souleymane Diagne quatre vingt dix huit mille ca Condox ci région de Matam la nekk sëriñ Mody Faye cinquante mille bu dee ca Ross Béthio sëriñ Aliou Ñing trois millions cinq cent vingt quatre mille ca Rosso Sénégal sëriñ Modou Sarr cent soixante dix mille. bu dee ca Rufisque quai de bu Tëngéej soxna Khady Ndiaye deux cent mille ca Rufisque ba tey ca Guy Murit soxna Maguette ja cent cinquante mille ca Saint-Louis ca Ndar moom sëñ Rijaal Seck ak soxna Rama Fall sept millions cent dix mille ca Koutiaba ci diwaanu Saloum la nekk sëriñ Keba Ndiaye cinquante mille ca Sanc Daara sëriñ Dame Guèye deux cent mille ca sanc bu Mambey moom itam ci Fuuta la son Sëriñ Xaadim Ñang quatre cent soixante six mille huit cent cinquante francs ca CMA 3 ci wetu ñii bi la ci région de Kaffrine Sëriñ Samba Ndiaye cinquante mille ca Taïf Mbakke Sëriñ Jibi Sari cent quatre vingt neuf mille ca Tambacounda Sëriñ Adama Niass ak mbokki Tamba yi fa nekk quatre millions neuf cent cinquante mille bu dee ca Tawa Ndiaye soxna Nogay Kebe soixante mille bu dee ci caajaay ci njiitul sëriñ fallu cinquante mille ca càlli soxna ka deux cent cinquante mille bu dee ca Thiès sëriñ bay sàll quinze million deux cent soixante seize mille ca Thiey Thiey soxna Fatou Jabaay trois cent cinquante mille ca Coor Jandeer sëriñ Cheikh Bey cinquante deux mille ca Tiwaawan sëriñ Mamadou Diop cinq cent vingt mille ca Touba Belel soxna Khady Diop ca Touba Belel soxna Soda Diop trois cent mille ca Touba Kellel Serigne Cheikh Diop ci Kellel cent mille francs bu dee ci Touba Ndiaye moom itam ci diwaanu Mboro la la bokk Serigne Abdou Thioune cent mille ca Touba Toul soxna Oumy Bousso cinquante mille ca Touba Diobé ca Casamance la Serigne Bara Gueye cent mille francs ca Tiib soxna Khady Dieng trois cent trente mille ca Vélingara Serigne Mbacke Gueye un million quatre cent soixante dix mille versement anonyme mooy yi nga xam ni mbokk yi dañ koy dugal ci compte yi rek wala ñu barkeeloo te duñ wax seen tour wala boog xamuñ ñu ko versé loolu mi ngi toll ci dix huit millions cent quatre vingt dix neuf mille trois cent soixante onze ci Ourossogui gi soxna May Mbacke un million six cent trente mille ci Yarawaay soxna Yaay ma Dieng quatre cent trente cinq mille. am na it ay jaayante yoo xam ne mbokk dañ ko indi woon ci biir année deux mille vingt bi yu bokkutoon ak jaayante yi ñu wote woon am na ci bu jógee ci famille Ndioufène cent cinquante mille francs am na jaayante bu jógee ci askanu rabb ci njiitu sëriñ Daouda Mbuub moom itam cent cinquante mille am na jaayante bu jógee ci sëriñ Moussa Diouf transporteur un million ak jaayante bu jógee ci sëñ Mbaye Sarr njiitul Sénécartour moom itam cinq cent mille ak jaayante bu jógee daare daayira soppee sëriñ Saliou moom it cent trente un mille cent jaayante bu jógee ci sëriñ buub CCBM un million ak jaayante bu jógee ci Café Touba muy kër sëriñ Touba Daara Xuddoos deux million trois cent six mille huit cent vingt ak jaayante bu jógee ci Jili Silla commerçant cinq cent mille ak jaayante bu jógee ci Café Touba Sam cent trente cinq mille ak bu jógee ci soxna maam Xari Mbàkke moom sëriñ Mourtala deux million ak bu jógee ci sëñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Massamba yàlla na ko suñu borom yàggal te moom itam un million ak bu jógee ci sëñ Abdou Fatah moom sëriñ Fallilou yàlla na fi gën a yàgg te wér barke Xaadim Rasul moom itam un million ak ay ASC ànd taxawu Daaru Xuddus quarante cinq mille yii nii jaayante la yoo xam ni bokkut ak li ñu defoon jaayante boobu ñu woote woon bu mag mooy opération defar yoon yi kon boo boolee li nga xam ni moo dugg ci compte Touba ci kanam ci zone nationale mooy biir réew mi ci atum deux mille vingt ci zone nationale mooy biir dëkk bi bokkut lu bokkut ak jaayante yi danañ ñëw ci jaayante ci kanam mi ngi toll ci un milliard cent soixante treize millions cinq cent neuf mille huit cent quatre vingt trois un milliard cent soixante treize millions cinq cent neuf mille huit cent quatre vingt trois loolu moo dugg ci Touba ci kanam te jóge ci biir Sénégal. ñu ñëw tamit ci li nga xam ni moo la ñuy retour espèce mooy ci màggal gi dafa am ay commission yoo xam dañu am lu ñu leen joxoon ñu doon nekk ci jafe-jafe màggal gi opération màggal gi la ki des nag ñu doon ko delloo si bu dee ci commission communication ni ñu desal ci trois millions cent cinquante mille trois cent francs bu dee commission massification lim desal ci màggal gi bit sa màggalam doon na trois millions neuf cent quatre mille huit cent cent cinquante sept mille cinq cent cinquante commission logistique moom itam dellusi nañu ay retour yoo xam ne dañ ko wàññi ci ay assurance ñu jëlee oto yi moom it vingt mille francs commission réalisation moom itam am na it ñoo xam ne dañoo jaayoon feer wàññi ci ab lim mu tolloon ci cent mille francs moom itam delloosi na kon li nga xam ne dafa dellusi woon ñu génne woon ko ci commission yi mu demoon ci commission yi te ñu delloosi ko te ndax utilisé wuñ ko woon ci jamonoy màggal geeg jamono yi ci aju noonu mu ngi toll ci sept millions éclairage domestique mooy làmp yi yi nga xam dañ ko doon indi di ko wecce ci buntu kër yi di ci duggoon tolloon na ci seize millions cinquante deux mille francs ci atum deux mille vingt institut islamique mooy université bi dafa am ñoo xam dañuy joxe seen barkeelu daal di teg baaraam nañ ko dugal ci université ba loolu cent vingt mille ci atum deux mille vingt ñu ñëw nag ci bitim réew diaspora bi li fa jógee dugg ci compte yi Touba ci kanam ci atum deux mille vingt ñu tàmbalee ko ci zone Asie ci Australie sëriñ Amady Wade huit cent soixante treize mille deux cent quarante ca Japon ci njiitul Serigne Cheikh Jigal Diop six cent quatre vingt cinq mille ci Arabie Saoudite ci njiitul Serigne Cheikh Seck un million cinq cent trente quatre mille quatre cent quarante deux francs bu dee ca Liban ci njiitul Serigne aline Badara Daabo deux cent mille francs am na jaayante boo xam ne mi ngi jóge woon taywaan ci sëriñ américain njiitul sëriñ américain ak mboolem tali bi fa nekk mi ngi toll ci trois cent dix-sept mille francs kon boo jëlee li jóge ci continent asiatique dugg ci Touba ci kanam ci atum deux mille vingt mi ngi tolloon ci trois millions six cent neuf mille six cent quatre bu dee ci zone Amérique ñu tàmbalee ko ca Chili réewum Chili sëriñ Xaadim Mbay ak mboolem taalibe yi cent quatre-vingt-dix mille francs ca Mexique Mexico City sëriñ Daouda Ñang trois cent mille ca Canada Serigne Pape Amar huit millions six cent soixante trois mille cent Argentine ci njiitul Serigne Pape Soda Sey deux millions sept cent soixante deux mille huit cent bu dee ci Brésil ci njiitul Serigne Cheikh Ndiaye jëwriñ six millions huit cent cinquante sept mille trois cent ca États-Unis d'Amérique ci njiitul Serigne Soin bu Seck ak mbooleem taalibe yi nekk États-Unis d'Amérique cinquante sept millions sept cent quatre vingt dix sept mille quarante francs kon boo jëlee li dugg ci Touba ci kanam jóge ci continent Amérique ci atum deux mille vingt mi ngi toll ci soixante seize millions cinq cent soixante dix mille deux cent quarante. bu dee ci son Europe ñu tàmbalee ko ci Turquie ci njiitul Serigne Ablaye Loum un million deux cent ca Espagne Serigne Malick Dieng ak mbokki Espagne yi vingt six millions huit cent cinquante et un mille cinq cent vingt ca Belgique. Serigne Abbas Dieye ak mboolem talibé Belgique ak ñi seqal wet googu un million cinq cent quatre vingt dix mille ca Italie ci coordination bi moom itam ci atum deux mille vingt cent trente neuf millions trois cent soixante seize mille deux cent cinquante quatre bu dee ca France moom itam ci coordination bi trente et un millions cent soixante quatorze mille quatre cent vingt bu dee ci Allemagne ci njiitu Serigne Abdou Salam Faye sept millions cent vingt cinq mille quatre cent cinq francs ci réewum Portugal Serigne Mouride Wade ak mboolem talibé Portugal six cent mille francs ca Écosse Serigne Ousmane Ndiaye ca Écosse trois cent douze mille ca Angleterre Serigne Fallou Diop ak mboolem talibé Angleterre quatre million quatre cent quarante deux mille huit cent francs ca Grèce Serigne Baye Omar Dia deux cent mille ca Russie Serigne Khalifa Seck cent onze mille six cent bu dee ci Suisse Serigne Ndiaga Aw quatre million quatre cent dix huit mille trois cent soixante seize am na it ay jaayante yoo xam ni jóge na Europe ñëw moo njëkk moo njëkk jaayante bi ñu doon def ci opération defar yoon ci muy mois bi bii da koo njëkk muy jaayante boo xam ni benn bis bu bàyyi Serigne lay doon soññee ci ki taalibe bi nekk itali moom dugal na ca cinq cent cinquante sept mille trois cent cinquante cent 357 mooy jaayante bis boo xam ne Baye Serigne géey moo ko doon soññee ak mbokkam taalibe yi mu nekkal Italie bokkutoon ci jaayante bi buñ tàmbalee jaayante benn bis la woon bu mu bu mu jëloon 557 mille 357 dugaloon na ko ci. beneen jaayante boo xam ne tam daayira Touba Toscana ñoo ko dugal mu toll ci 500 mille 200 francs ak jaayante boo xam ne Kër Serigne Touba Diaspora moom itam groupe bu Facebook la WhatsApp ñoom itam def nañ ci 602 mille 967. kon boo jëlee li aj dugg ci continent lu jóge ci continent Europe ñëw ci Touba ci kanam ci atum deux mille vingt ci carte Rossi la mi ngi toll ci deux cent dix neuf millions zéro quatre vingt quinze mille quatre cent quatre vingt dix neuf deux cent dix neuf millions zéro quatre vingt quinze mille quatre cent quatre bu dee ci diwaanu Afrique ñu tàmbalee ko ci Afrique du Sud Serigne Mor Dieng million millions neuf cent huit mille quatre cent francs ci Angola Serigne Mamadou Ba deux cent soixante mille bu dee ca Bénin Serigne mbay Sène cent cinquante mille ci Burkina Faso Serigne Lamine Gueye un million six cent quatre vingt mille neuf cent vingt ca Cameroun Serigne Cheikh Niassa Gueye deux millions soixante-dix-sept mille ca Cap-Vert Serigne Abdoul Ahad Amar million deux cent vingt-neuf mille quarante-cinq francs Congo Brazzaville ci njiitul Serigne El Hadji Diouf ak mboolem taalibe deux cent cinquante mille ca Côte d'Ivoire Serigne Mor Faassa ak mboolem taalibe Côte d'Ivoire neuf millions cinq cent quarante neuf mille huit cent francs ca Gabon Serigne Pape Ciss ak mboolem talibé yi Gabon trois millions cent trente deux mille ca Gambie Serigne Khadim Thian sept millions cent deux mille francs CFA ca Guinée Conakry Serigne Makhtar Niass cinq cent trente trois mille bu dee ca Guinée Bissau Serigne Modou Atta Seck huit millions deux cent cinquante deux mille huit millions deux cent cinquante huit mille huit cent huit millions deux cent cinquante huit mille huit cent Guinée Bissau bu la ci Guinée équatoriale ci njiitul Serigne Khadim Diop deux million cinq cent quarante neuf mille cinq cent ca Libye Serigne Mamadou Bakhoum cinquante mille francs ca Mali ci njiitul Serigne Alioune Waaj neuf million sept cent trente un mille cinq cent bu dee ca Maroc ci njiitul Serigne Albouri Seck sept cent vingt mille ca Mauritanie Serigne Ibrahima Sarr ak mboolem taalibe yi Mauritanie sept millions six mille francs ca Niger Serigne Mamor ñoom un million quatre-vingt-quatorze mille Tchad Serigne Mori Silla sept cent mille cinq cent bu dee ca Togo Serigne Modou Mamoun Dramé sept mille deux cent am na beneen mbokku taalibe bu dëkk Togo boo xam ni moom itam barkeeloo woon na million kon boo jëlee li jóge ci zone Afrique ci carte Agrossi ci biir dugg ci Touba ci kanam ci atum deux mille vingt mi ngi toll ci soixante sept millions huit cent dix neuf mille six cent soixante cinq soixante sept millions cent dix neuf mille six cent soixante cinq kon boo jëlee li dugg ci Touba ci kanam ci atum deux mille vingt ci diggante carte Agrossi ci deux mille vingt dugg ci Touba ci kanam jóge ci biir Sénégal ak ci diaspora bi ak jaayante yi nga xam ne bokkutoon ak jaayante yu nekkoon ci opération defar yoon yi. ñu ngi toll ci un milliard cinq cent soixante quatre million cinq cent neuf mille six cent dix neuf francs un milliard cinq cent soixante quatre millions cinq cent neuf mille six cent dix neuf francs ku nekk xam na ni Touba ci kanam woote woon na ab jaayante ci huit août deux mille vingt mu jëm ci assainissement ak ay tali ay yoon yu ñu waroon defar mbokki taal bi ne guy si ci jaayante bu baax a baax kon ñu ñëw lim leen yi nga xam ne moo jaar ci jaayante bi ñëw ci Touba ci kanam ci deux mille vingt ñu tàmbalee ko ci zone nationale mooy biir réewum biir réewum Sénégal li fa jógee ci jaayante bi dugg ci compte yi mi ngi toll ci un milliard cent quatre-vingt-deux millions six cent cinquante-quatre mille huit cent vingt-huit un milliard cent quatre-vingt-deux millions six cent cinquante-quatre mille huit cent vingt-huit moo dugg ci jaayante bi jógee biir Touba dugg jógee biir Sénégal Orange Money 78 544 33 33 ci assainissement bi jaayante bi dugaloon na cinq millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille bu dee ci Orange Money plateforme bi moom itam dugaloon na cent soixante onze millions sept cent cinq mille neuf cent quatre vingt trois bu dee Wari ñu jaaroon ci plateforme Wari bi nga xam ni code marchand vingt huit vingt huit la deux millions quatre cent cinquante six mille cent soixante sept bu dee ci plateforme Wave vingt quatre millions soixante neuf mille soixante neuf mille quatre cent soixante treize kon boo dajalee li jaar ci biir réew mi ak ci jaarukaay yooyu ma wax ci biir Sénégal ci jaayante ci atum deux mille vingt mi ngi toll ci un milliard trois cent quatre vingt six millions cinq cent quatre vingt cinq mille neuf cent soixante dix sept cent quatre vingt six millions cinq cent quatre vingt cinq mille bu dee lu jógee ci continent asiatique ñëw ci jaayante bi ci atum deux mille vingt ci defar yoon yi ñu tàmbalee ko Japon deux cent cinquante deux mille trois cent bu dee ci Chine trois millions trois cent quarante cinq mille bu dee ci Corée du Sud cinq cent cinquante mille kon boo dajalee li jóge ci jaayante bi jóge ci Asie ci deux mille mi ngi toll ci quatre millions cent quarante sept mille trois cent francs bu dee ci continent Amérique ci jaayante bi Argentine ci jaayante bi la fa jóge mi ngi toll ci quatre millions sept cent soixante cinq mille ca Canada douze millions cent quatre vingt cinq bu dee ci États-Unis d'Amérique cinquante neuf millions million cent quatre vingt mille cinq cent francs bu dee ci réewum Brésil ci jaayante ba tey sept millions cent soixante mille deux cent bu dee ci réewum Uruguay moom itam ci Amérique du Sud la nekk cent cinquante six mille francs kon boo boolee total li jógee ci continent Amérique ci jaayante nga xam ne bokkut ak carte ak Russie ci jaayante ci atum deux mi ngi toll ci quatre vingt quatre millions soixante dix sept mille sept cent francs 84 millions 77 mille 700 francs bu dee ci zone Europe ci continent Europe ci jaayante bi la nekk nii ba léegi li fa jóge ma tàmbalee ko ci Allemagne 3 millions 249 mille 106 bu dee ci diwaanu Angleterre 6 millions 130 mille 994 bu dee ca Belgique 2 millions 205 mille francs bu dee ca Belgique ba tey daayira Matlaboul Fawzayni bu Touba Bruxelles un million cent bu dee ca Danemark deux cent quatre-vingt mille bu dee ca Écosse un million jóge na fa ci jaayante bi ci atum deux mille vingt bu dee ci Espagne li fa jóge ci ñëw ci jaayante bi ci année bi ñu génn muy deux mille vingt mi ngi toll ci vingt cinq millions cinq cent dix mille six cent cinquante sept ca France douze millions quatre cent quarante neuf mille cent quatorze bu dee ci Italie million 72 millions 423 mille 994 bu dee ca Suisse 2 cent 230 mille cinq 580 ca Portugal 810 mille 500 ca Russie 133 mille 500 kon boo jëlee lu jógee ci Europe ñëw ci jaayante bi ci atum 2020 ci jaayante bi nga xam ne bokkut ak kàtt ak Russie jaayante bi la mi ngi toll ci 127 millions 490 mille 845 cent vingt sept millions quatre cent quatre vingt dix mille huit cent quarante cinq bu dee ci diwaanu Afrique ci jaayante bi moom itam la fa jógee nga xam ne bokkut ak carte ak Russie jaayante bi rek la woon ñu tàmbalee ko ci Afrique du Sud deux millions deux cent cinquante mille ca Cap Vert un million cent quatre vingt cinq mille ca Congo Brazzaville trois cent mille ca Congo Kinshasa six cent mille ca Guinée Bissau deux millions trois cent quatre vingt quinze mille neuf cent quinze bu dee ci Angola deux cent mille ca Cameroun huit cent mille bu dee ca Côte d'Ivoire six million cinq cent vingt mille bu dee ca Gambie deux millions bu dee ca Gambie bu dee ca Gambie quatre million huit cent vingt huit mille huit cent trente huit bu dee ci Guinée équatoriale deux millions huit cent vingt sept mille ca Mali trois million quatre cent mille ca Burkina Faso un million soixante onze mille cent vingt ca Burkina Faso un million soixante onze mille cent vingt ca Nigéria cinq cent soixante dix mille bu dee ca Mauritanie million cinq cent soixante deux mille ca réewum Tchad quatre cent soixante dix mille bu dee ci réewum Tunisie vingt cinq mille francs bu dee ci Djibouti cent soixante mille six cent quarante trois ca Guinée cent quatre mille cinq cent cinquante bu dee ca Gabon deux millions. bu dee ci ak réewum Ghana cinquante mille ci réewum Maroc huit cent quatre-vingt-huit mille bu dee ca réewum Togo nag deux millions kon boo boolee li nga xam ne moo jaar ci jaayante bi ñu bokkut ak carte grossi jóge ci Afrique ñëw ci Touba Ca Kanam ci mille vingt mi ngi toll ci trente cinq millions huit cent huit mille cent soixante six trente cinq millions huit mille deux cent soixante six kon boo jëlee li nga xam ne moo dugg ci jaayante bi. jaayante bi nga xam ne bokkut ak carte grosse jaayante bi rek la ci biir réew mi Sénégal ak bitim réew mi ngi toll ci un milliard six cent trente huit millions cent dix mille quatre vingt huit francs un milliard cent trente mille quatre boo boolee nag li dugg ci Touba ci kanam ci atum deux mille vingt li ci dugg lépp moo xam ci carte. carte de membre carte membre la moo xam ci ay reçus yu ñu doon jaay la moo xam ci jaayante bi boo boolee lépp ci atum deux mille vingt li dugg ci keesu Touba Ca Kanam ci atum deux mille vingt mi ngi toll ci trois milliards deux cent deux millions six cent dix neuf mille sept cent sept trois milliards deux cent deux millions six cent dix neuf mille sept cent sept loolu mooy li nga xam ni moo dugg ci Touba Ca Kanam ci atum deux mille vingt ci diggante ay carte ak reçus yeeg jaayante beeg ak lépp lu ma doon. mooy li ma lim léegi noonu mu toll ci trois milliards deux cent deux millions six cent mille 707. ginnaaw bi ñu leen waxee li dugg ci compte Touba ci kanam ñu ñëwaat nag incha allah wax la li jot a génn ci Touba ci kanam ci atum deux mille vingt ñu tàmbalee ko ci terrain boo xam ni ab siège la Touba ci kanam naal naal ñu war ko faa def moom itam jënd nañ ko cent trente millions. bu dee ci commission réalisation ñu tàmbalee ko ci. poste de santé bi nekk Boberel mooy hôpital bi Touba ci kanam tabax ci quartier Boberel ci biir Touba li fa dem ci atum deux mille vingt mi ngi toll ci dix millions cinq cent quatre vingt sept mille quatre cent. bi nekk Kër Gol moom itam ci quartier bu nekk ci biir Touba ci atum deux mille vingt li ki dem mi ngi toll ci ndax moom noppi na ba noppi sax li ci dem mi ngi toll ci trois millions cinq cent quatre vingt deux bu dee sànc hôpital bi nekk Ndaam Touba Ndaam. ci atum deux mille vingt li ci dem mi ngi toll ci quarante trois millions trois cent soixante quatorze mille cent cinquante sept bu dee ci sànce hôpital bi nekk Touba Njaareem cinquante millions quatre cent soixante cinq mille trois cent soixante bu dee ci sànce hôpital bi nekk Daaru Xaddim li ci dem mi ngi toll ci trente et un millions cinq cent soixante quinze mille dix huit francs euh, wa barab bi yi mooy wanag yi nekk ci morgo bi fii ci euh, armeel yu njëkk yi. am yeesal li ñu fa doon def jëm ci wàllu pavé ak luy aju ci aju Touba Ca Kanam def na ci at mi cinq cent quarante mille neuf cent quarante cinq bu dee ca poste de santé Lansar moom mi ngi dox sax na bu yàgg Touba Ca Kanam def ci atum deux mille vingt lu toll ci quatre cent toll ci quarante mille francs lu toll ci quarante mille francs bu dee ci université ba nag ñëpp xam nañ ni Touba Ca Kanam maa ngi fay def bâtiment boo xam ni huit cent millions dana ko mat ci atum deux mille vingt Touba Ca Kanam def na ci cent vingt neuf millions. cent 762 mille cent cinquante bu dee ci yeneen defar yoo xam ne mi ngi aju ci bordereau yeeg trans papier transfert rek lu aju ci bureau bi moom itam loo xam ne mi ngi ajoon ci commission réalisation def na ci cent 921 mille cinquante kon boo jëlee commission réalisation li ci dugg li ci li mu génnee ci compte Touba ci kanam ci atum mille vingt mi ngi toll ci million 270 millions cinquante mille. deux cent trente trois deux cent soixante dix millions huit cent cinquante mille deux cent trente trois bu dee ci commission scientifique et culturelle mooy ñu yor wàllu daara yi ndax képp ku ne xam ne ni doon nañ defar ay daara toll nañ ci yu ñu yeesalaat ak yu ñu ci def ay war tey fii am ci daara yi soixante huit daara ren loolu mi ngi toll ci soixante trois million deux cent quatre vingt quatorze mille deux cent cinquante bu dee lu aju ci li nga xam ne sëriñ daara yi ñu doon tàggat ak. li ci aju ak livre ñu doon defar ñoom ak yooyu ci atum 2020 li ci dem mi ngi toll ci 4 millions 656 mille 450 kon boo boolee commission scientifique et culturelle ci atum 2020 li ci dugg mi ngi toll ci 67 millions 950 mille 700 francs 67 millions cinquante mille cent francs bu dee ci commission communication li aju ci commu commission communication lépp moo xam bit see màggal gi la moo xam autocollant yeeg affiche yeeg flyers yeeg contrat télévision yeeg rajo yi ak plateau télévision yeeg spot publicitaire yeeg couverture médiatique yeeg vidéo organisation yeeg vidéo yi session de fonds loolu ki dem ci atum deux mille mi ngi toll ci trente deux millions quatre cent quatre vingt six mille cent francs trente deux millions quatre cent quatre vingt six mille cent francs bu dee ci commission massification lu aju ci karawaan yi ñu doon def. yu génn biir dëkk biir réew mi yi ne ci biir biir réew mi yu génn biir dëkk bi ak budget café Touba ci kanam yi ak màggal yeeg budget màggal geeg yu màggal yi fi jaar yëpp li ci dem ci atum deux mille vingt mi ngi toll ci dix huit millions six cent soixante trois mille huit cent cinquante dix huit millions six cent soixante trois mille huit cent cinquante bu dee ci commission santé ñu fàttaliku ni Touba ci kanam poste santé yi mu am ba yi mu am ba noppi muy kër gol boobareel ak. daaru xadim ak yeneen yu mel ni ñoom ak ay poste santé moo xam yaañ kala ak yoon daaroog daaru tansil ak fu bari ak daaru xamaan ak fu bari ci dëkk bi matériel médical yi doon jënd ci commission santé li ki dem ci anam deux mille atum deux mille vingt mi ngi toll ci cinquante six millions cent trente quatre mille cent dix cinquante six millions sept cent trente quatre mille cent dix bu commission étude et contrôle ku xam ne doon nañ def ay ndaje yu am solo ay atelier li ci dem ci atum deux mille vingt mi ngi toll ci un million bu dee ci wàllum baleb dëkk beeg la ci aju ci màggal yi ba noppi wala yenn bale yi ñu def Touba Ca Kanam dugaloon jàppale kuréel gi yor loola lu toll ci un million six cent quarante cinq mille bu dee ci quartier yi nga xam ni ndox mi dafa àggutoon Touba Ca Kanam war fa àggali ndox mu doon ay quartier yu baree baree baree bëri ak tamit forage yi nga xam dafa paanoon Touba Ca Kanam jënd pompe yi ak lu aju ci loolu lépp mu ngi toll ci liñ ci def ci atum 2020 mi ngi toll ci 85 millions 753 mille 525 bu dee ci commission environnement muy njëmbatum garab yeeg toppatoo ba ci ajoog la ca war ci atum 2020 Touba Ca Kanam def na ci 3 millions 599 mille 950 bu dee ci commission environnement mooy opération defar yoon yi ku ci ne xam na ni Touba Ca Kanam woote woon na ab liggéey bu rëy rëy mu jëm ci ay kilomètres tali yu bëri ak assainissement ak la ci aju mooy liggéey yi ngeen doon dégg rek ci at mi li ci dem ci atum 2020 li dem ci liggéey bi lépp mu ngi toll ci ci atum 2020 mi ngi toll ci un milliard sept cent vingt six mille cent dix sept un milliard sept cent vingt six millions sept mille cent dix sept bu dee ci commission leeral muy ku ci ne gis na ni làmp yi mbedd yi Touba Ca Kanam def na ci liggéey bu am am solo commandé lu man ñetti junni làmp ak la koy frais ak la ci aju lépp loolu ci atum 2020 li ci dem mi ngi toll ci 85 millions 186 mille 175 bu dee ci personnel bi liggéey ci Touba ci kanam ñuy wax charge fixe salaire yi ñu nekk Dakar ñu nekk Touba nekk ci yeneen région yi ak ñi fi liggéey safoor yeeg courant beeg yi loolu Touba ci kanam def na ci atum 2020 48 mille francs CFA am na itam ay matériels yu jógee Italie moo xam ay ambulance la ak ay camion citerne ndox ak ambulance yu ci aju yu bëri yu jógee Italie loolu Touba ci Kanam def na ci 17 millions 182 mille 239 bu dee ci charge fixe maanaam salaire yi ñuy liggéey ci Touba Ca Kanam chauffeur yeeg li ci aju location yeeg courant beeg mboolem liggéey Kanam ak bureau Dakar ak yeneen régions yi li ci nekk lépp li ci dem ci Touba ci Kanam ci atum 2020 ci salaire mi ngi toll ci quarante neuf millions quatre cent treize mille cent quatre vingt dix am na itam ay matériel yu jógoon Italie ay ambulance ak oto yu sapeur pompier fere ci dem mi ngi toll ci dix sept millions cent quatre vingt deux mille deux cent trente neuf bu dee commission logistique mooy bu leen fàtte ni Touba ci kanam am na benn machine bu mu jënd buy def. pavage ak yu ci aju ay camion citerne pel pelle mécanique ak nasel ak oto yu oto yu bëri boo boolee yooyu nag entretien beeg assurance yeeg gasoil yi ci dem yëpp mi ngi toll ci deux cent soixante six millions sept cent soixante six mille six cent quatre vingt bu dee ci budget caisse siège ak collecteurs yi nga ne paas leen di jox pour ñu delluwaat ak yooyu noonu boo boolee loolu ci atum deux mille mi ngi toll ci un million huit cent mu dee commission membre mooy carte yi ñu doon defar ak reçu yeeg yi ci aju cinq million trois cent vingt mille sept cent cinquante bu dee ci commission organisation mu jëm ci exposition màggal geeg journée diaspora li ci aju mu ngi ci huit cent mille huit cent mille huit millions mu ngi tolloon ci huit millions six cent quarante neuf mille bu dee commission administrative mooy matériel bureau yeeg chaise bi taabal yi ci nekk ak machine yi ñuy liggéey ak imprimante yu mag yeeg loolu mi ngi dem mi ngi toll ci sept millions huit cent six mille deux cent cinquante ci jamono yi corona bi ci première vague bi am nañ kër yoo xam ne dañ leen doon quarantaine suñ bi joxe woon ndigal ni Touba ne leen toppatoo ginnaaw bi tamit Touba def na ay jënd na ay jumtuwaay yu bari mu jëm ci ay eau de javel ak ay détergent ak ay gel alcoolique ak lu ci aju liñ jëmoon ci jàppale ñu doon jàppale waa dëkk bi ci mbirum corona bi loolu Touba ca kanam defoon na ci soixante cinq million ba tey tam ci jamono jooje tamit Touba kanam jàppale woon na commission sociale jël ci keesam lu tolloog soixante et un millions def ko xam ci boo xam lépp lu muy jëm ci commission sociale bureau inspection vérification tamit Touba ca kanam defoon na ci trois cent mille francs ci atum am na itam yeneen frais yu jëm ci ay frais bancaire rek ak frais yu ndaw frais divers li ñu woowee frais divers lépp boo ko boolee mi ngi toll ci deux millions. kon li génn ci kees Touba ci kanam ci atum deux mille vingt mu ngi toll ci deux milliards neuf cent soixante sept millions trois cent soixante dix sept mille neuf cent vingt li dugg ci compte Touba ci kanam ci atum deux mille vingt mu ngi toll ci trois milliards deux cent deux millions six cent dix neuf mille sept cent sept. 3 milliards 202 millions 619 mille 707 li ci génn mi ngi toll ci 2 milliards 967 millions 377 mille 926 kon boo xoolee seen diggante ñu ñaar day nekk li ciy des ci atum 2020 day nekk 235 millions 241 mille 781 235 millions 241 mille 781 bu fekk see li fa desoon ci 31 décembre 2019 mooy at mi ñu génn tolloon ci 634 millions 835 mille 680 boo ko ci boolee kon li des ci compte Touba ci kanam ci 31 décembre 2020 mi ngi toll ci 870 millions 77 mille 461 870 millions 77 mille 461 ñoo ngi sant nag mboolem ñu doon jàpp ci liggéey bi ak ñu ngi ko seqaloon ñëpp rek ak mboolem fooy mën a nekk ci Touba ci kanam moo xam nga sori wala nga jege ci liggéey bi ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ñu teewe ko at yu bëri barki Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf